bokk na ci li ci euh, gën fes li Olof Njaay bi faral di wax ne na bu naree baax wala kon bu naree neex Ah, su baxee dafay xeeñ te itam ah, butéel du kubéer ga du xeeñ lenn lu rek la mu def ndax kii di njiitu réew président Macky Sall la jëm ci mbirum ñetteelu mandat ab tubaab bu xonk cuur ñu koy ab juriste ñëw na ngir ah, daganal googeele candidature dinañu ci ñëw ci biir les xibaar la xewoon fële ca diwaanu ci gi coor gone ga ñàkkoon bakkanam ci Antoine Félix Diome def ci ak communiqué goo xam ne si ba dikk na weddi lanu mel ñii di waa TV5 Monde def nañu ci reportage danañu ci ñëw procès Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moom mooy aji saara kon ni ki ëllëg la ci talaata ji dees na ko rek kon euh, daa di euh, xaar moom njiital Pastef di Ousmane Sonko ndax dana wuy si waaw wala déet loolee dana ñu ci ñëw ak avocat bi di maître Ciré door li kàddu yi nga xam ni euh, yëkkati na ko ca ci googile mbir ci boobule dossier moom docteur bi di docteur Alfouseyni Gaye nag la aji woon ci wàllum sécurité am ci gin càggaañ ga ca am ak taxawaay lees ca war am dana ñu ci ñëw ca biir yi lay xibaar lay doon kii dañu koy jeexale ak mbër ya demoon fële ca euh, diwaanu euh, palais de la république euh, la ñu seqanteeg kii di njiiram ak seen conférence de presse la ca tukkee mbokk yi lii moom moo gën a fës ci bopp yi la xibaar da ngeen di ànd ak ñun ñu faram fàcce ko président Macky euh, Sall njiital euh, Sénégal nekk itam euh, chef de parti bi di APR moom président Macky Sall boobu du nekk waaw du nekk ñett wala sax waaw bi doo ci am dara ci lu jëm eh, ci mbirum ñetteelu mandat moom njiitu réew mi nag eh, ñu ngi xamal ka ni eh, benn juriste bu wéy ci turu Guillaume Drago nekk ab français de tubaab bu xonk tur kon daal di nay dox ci tànku daganal lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature jëm ci ñetteelu mandat ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëkk ma la ñeel kii di président Macky Sall gi nga xam ne askanu ko Sénégal li ëpp ci ñoom nee nañu euh, mënatu la am euh, lu luñ lu beneen mandat ndax def na ñaari mandat yu xas tegaloo ba noppi ba sax loolee jur euh, kuréel gi ñu di dippee F24 daal di juddu taxaw temm ngir barrer la route kii di président Macky Sall bi nga xam ne bokkoon na ci ñi doon xeex ci atub 2011 ci lu jëm ci mbirum ñetteelu mandat ñeeloon kii di président Abdoulaye wadd ba taxoon lu toll ci fukki bakkan ak benn rot ci moom njiitu réew boobu noonu leen ak tey jamono gii taxaw wala kon euh, en tout cas ma ngay xeeñ euh, di togg euh, ndax dana ñor bas koy yàq loole nag moom mooy laaj bi sampe waaye lu ci manti am jamono ji li nga xam ni moom moo jëm ci mbirum ñetteelu mandat daal daal dinay xeeñ bu baax a baax gannaaw ba ñenn ci ay jegeñaaleem ku ci mel ni Ismaïla Madior Fall ak ñeneen ci ñoom taxawee doon na défendre lu jëm ci mbirum ñetteelu mandat moom tey kii di président de la république Macky kii di juriste euh, Guillaume Drago nekk ab français moom itam euh, sukkandiku na ci euh, xam-xam ak ci constitution nee na kii du njiitu réew mi di président Macky Sall mën na am la nga xam ni moom la ñu duppee lii di ñetteelu mandat bu ñu ca jugee ñu àddu wax ci leneen ak li xewoon fële ca diwaanu Ziguinchor gone ga fàttu woon te ñu dóoroon ko bal di Pape Keita ba sax kon na Papa Dia euh, génnoon di ñaawlu anam nga ñu faatee doomam gile ndax dañu ko dóor bal moom ministre de l'intérieur ab communiqué la xaatimoon na jëmee ci wàllu yi noonu ni la léegi nag autopsie ba ñëw na weddi ko ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa TV5 Monde def nañu ci ak reportage di wane wax yi nga xam ni kii euh, mooy euh, Antoine Félix Diome kaddu yi nga xam ni wax na ko te dara du ca dëgg loole nag kon na daa di. jur coow loo xam ni fi mu ni nii euh, waxuma sax ci euh, biir réew waaye wal ca euh, bitim réew ñoom ña ngay daal di wax ci kon Antoine Félix Diome wala la nga xam ni rek daal di na koy génnee ci communiqué xaatim ko moom en tant que ministre de l' intérieur te fekk kon loolee dara nekku ca mi ngi noonu ba tax kon procès bi dox ci diggante kii di Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba tax sax loolee moo taxoon moom Ousmane Sonko mu lànk kandaare ni du wuy ji ndax dafa. doon def li ñu duppee campagne de désobéissance civique euh, loole nag euh, tax euh, kon ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko ni ki ëllëg ci talaata yi ñu ngi koy xaarandiwaat fële ca palais de justice ak ki nga xam ni euh, moom mooy euh, aji Rabi Sarr bi nga xam ni moom moo ko daal di euh, jiiñ li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu wi yàlla moom mii di maître Ciré Clédor Ly moom la nga xam ne processus bati Ousmane Sonko n'a encore reçu sa convocation pour ce mardi bu ñu sukkandikoo ci avocat bi di wuyoo turu maître Ciré Clédor Ly moom ma ngay xam ne ni sax ba tey avocat bi di Ousmane Sonko en tout cas ba ñuy mujjee nangu <coughs> yi lay xibaar jotagul li nga xam ni moom mooy convocation am euh, jëm euh, fële euh, palais de justice bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi nga xam ni ñoom ñooy waa dakaar Actu bi nga xam ni kon na euh, ci la ñu taataango yi la xibaar moom euh, kii di euh, Ciré Clédor di kon ci procès bi doox ci diggante client bi di Ousmane Sonko ak Adji Sarr jëm fële ci chambre criminelle ndax lii di viol dañu ko daal di criminaliser kon moom ma ngay xam ne ni li nga xam ni moom mooy convocation kon nag ñu ko te sax ma nga cay teg ni moom mooy Ciré Clédor Ly dossier bi dossier la boo xamante ni si ni kon. jamono jii dafa rekk daal di nekk ci mbedd mi eh, te il faut que nag nit yi daal di koy régler ci eh, mbedd mi ba tax ñii di collectif des étudiants patriotes du Sénégal ñoom mooy yëkkat nañ seen i kaddu la ñu cay xamle mooy eh, li ñuy diaboliser ak attaques yi nga xam ne ñu ngi leen koy def ak yenn cay xeeti violence yoo xam ni ña ngi koy dund ak li nga xam ni moom mooy ay arrestation yoo xam ni boobu ba léegi bari na ci seen côté nekkul lenn lu dul jéem leen intimider maanaam xoqutal leen ba daal di xañ kii di njiitu Euh, kii di euh, usmaan Sonko ngir mu nekk candidat fële ca élection yi ñu mal waaye nag ñoom la ñu xam ne mooy dinañu gën a boole seeni doole takkatoo doon benn ngir daal di xeex ba ñoŋal candidature kii di euh, Ousmane Sonko bi nga xam ni moom lañu ñu yaakaar te bépp yoon boo xam ni kon nag am nañu maanaam yoon may na leen ko rek danañu ca jaar ngir daal di xeex lu ni mel ba kii di Ousmane Sonko euh, daal di nekk candidat ci élection présidentielle yi nga xam ni moom la ñu dëgmal ba tax ni ci suba bokk na moom ci ñi nga xam ne ñu war a euh, témoin moom docteur di médecin Alfousseyni Gaye bi nga xam ni moom moo defoon boobele certificat médical moom Seydi Gassama nag dellu si na di wax ci li nga xam ni euh, moom moo di euh, jamono ji sécurité am ndax euh, xam leen ne kii docteur Alfousseyni Gaye depuis ba mu defee boobal certificat médical ba pare daal di assumé ay responsabilités am bakkanam mi ngi ci xottu gerte ba tax na jëm na contacter kon ñi nga xam ni rek ñoom ñooy yore wàllu googu noonu ngir ñu daal di koy assurer li di sécurité am loolee nag dañ ko ko daal di lànkal ba tax moom dafa dem demande ji protection kon feneen foo xam ni dafa contacter. Euh, ñi nga xam ni dañuy une société boo xamante ni si ni kon euh, dafa yëngu ci wàllu sécurité mais naka privé la ngir ñu gën ko mën a assurer li nga xamante ni moom moo di sécurité ba tax loolee nag moom mu jàpp ni euh, ci société boo xamante ni si ne dañu bëgg rek jàmm dox fa waaye itam dañu bëgg justice boo xam dafa équitable loolee euh, kenn mënu ko euh, xam kenn mënu ko ràññeetle ba tax moom si digga sama mu jàpp ni kon na fii di euh, Sénégal li fi am du lenn lu dul justice boo xam ni dafay doxe ñaari tànk bu ñu ci jógee ñu du wax ci keneen moom honorable député Amy Ndiaye Gniby gannaaw kon jàppante yu amoon fële ca biir assemblée nationale ba ay duma amoon ca moom Amy Ndiaye Gniby nag lañu defoon euh, ci ab euh, certificat médical di xam ne ni dafa ëmb moom nag daal nay génnaat anam gu mu génnee nag xaw na yéeme ndax moom Amy Ndiaye nji bi kon ëmb googee mu doon wax dafa mel ni que euh, lu doon dëgg la ndax na mu génnaatee toog loole ñu ci bare bari njortu nañu ni moom mi di Amy Ndiaye nji bi kon na dafa rek daal di wan lor ci fàttali kii di Massata Samb ak euh, mu mudd Niang ñaari député PUR yooyu noonu le euh, la doon jàppanteel bu ñu ca jugee ñu àddu wax ci euh, leneen ak. Euh, ki nga xam ni moom moo di euh, Thierno bokkum bi nga xam ni euh, jamono ji moom mii di Thierno Bocoum bokk ci ku gi mi ngi kon génn di tontu Ousmane Sonko gannaaw ba kii di njiital Pastef li génne woon def benn entretien boo xam ni dafa lànk daal ni du tuddu turu ñenn ñi moom Thierno bokkum nag loolee daf ko mer ba futt ba tax ma ngay wax kii di njiital Pastef Ousmane Sonko na revient sur terre maanaam na wàccee boppam dellu si te xam ni ku bëggul turam ñu nit ñoom itam bëgguñu tudd xam ni moom mooy euh, tuuram bu ñu ca jugee ñu wax euh, ci leneen ak euh, fële ca Goudomp kon ay jeunes manifestant yoo xam ni dañuy doon manifester wu ñu jàpp leen duma leen ba gaañ leen ñoom nag am nañu li nga xam ne moom mooy seen ay certificat médicaux ndax dañu amee ay gaañu gaañu yu bare bari ci anam ga nga xam ni moom lañ leen doon doon moom lañ leen doon torturer ba tax ña ngay sàkku ci anam gu mu gën a rafete yoon daal di def liggéeyam ah, ci ah, googele wàllu Sonko déstabilise Idi ci s'énerve ca génnam ba nga xam ni def na ko fële ca wala fajiri moom Ousmane Sonko gannaaw ba mu àddoo ca wisit ga nga xam ne kii di Idrissa Seck ndaamal Kajoor defaloon na ko ko fële nga xam ni moom mooy ca këram ci weeru koor ga Sonko ñëw na ci anam gu yaato yaato waaye nag kii di Idrissa Seck ah, daf ca daal di mer ba fut ndax ma ngay xam ne ni kii di Ousmane Sonko daal la mu wax dara du ca dëgg ba tax laaj bi sampe jamono ji mooy entre Ousmane Sonko ak Idi ñoom ñaar ana jamono ji kon kan rek moom moo cay wax dëgg ndax Idi weddi na gépp kàddu koo xam ni kii di Ousmane Sonko daari na ko koy teg mu mel ni ko kon Idi euh, ma ngay euh, maire ba fóotu lu jëmoon ci révision des listes électorales bi nga xam ni doon nañ ko amal ca. Euh, fan yële weesu euh, ci diiru benn weer lu toll ci trois cent soixante dix mille euh, demande yoo xam ni daal di nañ leen di enregistré ci goo xam ni bindu nañu ko loole nag doon lim goo xam ni am na solo lool ci liste ci bindu goo xam ni waroon na toll ci diiru juróom benn weer ñu indi ko ba ci ñaar benn weer bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu googu Ousmane Sonko condition ya mu tegoon ni bu ñu ko respecté danañ. doon wuy ji ni ki ëllëg talaata ji état bi nag dafa daal di tànqamlu dafa mel ni que déggul ki nga xam ni euh, moom mooy euh, leaderu Pastef boobu noonu lee di Ousmane Sonko ba tax ni ki ëllëg wuy ji Ousmane Sonko dafa mel ni fi mu ne nii taq na suuf ñi daanu ba xalangu taq suuf mooy takkikat yi ngeen buy di mbër ñu ndax ñu ci bare bari ci sénégalais ñu ngi leen di jaba jonge seen wuy ji nga xam ne wuy ji woon nañ ko fële ca palais présidentiel de la république euh, ñoom mbëri nag génnaat nañu def li tàmbalee si janoo ak taskatu xibaar yi daal di assumer bu baax a baax li nga xam ni moom mooy euh, seen ay responsabilité ñoom nag la ñu ca xam ne mooy danañu fas yéene jàppale ki nga xam ni moom mooy président de la république Macky Sall gannaaw ñoom euh, ba mu leen ba ñu jàppalee li nga xam ni ñoom ñooy ëhlu làmb en tout cas loolee kon la ñu daal di joxe naw lay woo xam ni ñoom nee nañu pare nañu te dinañu jàppale ki nga xam ni moom mooy Euh, président Macky euh, Sall euh, tension politique moom du Diagne Fada moom nag ma ngay yàq musiga ak mbelengaan ak lu mel ni xeme ñi nga xam ni ñoom ñoo fare ci l'opposition bi ndax moom ma ngay xam le ni yàgg na def wala kon yàgg na ci kujjeg politique mais façon bi nga xam ni gis na ko moom mësu ko gis kujje goo xam ni maanaam opposition boo xam ni ay mbirum religion mbirum diine ak lu jëm ci mbirum ethnique waaso képp ngay dégg ñuy wax loole mu ni mbir la boo xamante si si ni baaxul ci dëkk surtout lu jëm ci suñu ay confréries ba tax moom mi nga xam ni euh, moom mooy euh, du Diagne Fada mooy xam ne ni am nañu euh, bu baax a baax intérêt ngir kon daal di booloo dialogué ngir mën a am li nga xamante ni si ni moom la président Abdoulaye Wade bëggoon ñoom lee libéraux ngir daat fi mën a toog cinquante ans de pouvoir moom Modou jaañ Fada nag ma nga yëkkati kàddu di xamle lu ni mel manifestation à Sédhiou une quinzaine de manifestants dont trois murs yoo xam dañ leen arrêté teg leen teg leen loxo mu doon xibaar goo xam ne itam danañu ko wéy di leen ko topp ndil mi ngi noonu euh, mbokki internet di 313 digital li euh, yem ak fi xee xibaar yi kon di euh, daano ñuy wàccee foofu suñu kàddu di leen jox dig daje léegi léegi ak yeneen i programme laata loolu wéy leen di abonné di bës itam ci cloche de notification bi ndax ngeen mën a continuer di jot suñu ay programme jërë ngeen jëf.